na lu ëpp cent jeunes yoo xam ne ci lii la ñuy liggéey boo leen ko teree lan la ñuy def dem jël gaal yi dem tugal loolu du solution moo tax état bi jël responsabilité am donte nag lii compétence su mairie yi la ma leeral ko du compétence su état bi man mi ba barki démb xaw ma lu ci xew parce que du compétence su état bi moo tax état bi jël décision ne moom dina jël responsabilité donte mairie yi ñoo am compétence bi waye mairie yi ci tutelu état la ñu nekk mairie yi membre la dañu ci état kon dinañu xoolaat ni ñu wat ak mairie yoyu ba fep fuñu wara def lu mel noonu état bi jël les devants ñu xol luñuy ak commission départementale yi ñu évaluer situation nit ñi ñi nga xamné ne war leen jox ay dédommagement ñu jox leen ko out ay solution de remplacement bala ñuy génne kenn fi mu nekk wayé tamit muy lu am solo ci eh, programme bi niñ ko bëgg doxalé doxalee ñu xool eh, diggante riverains yi état bi ak collectivités locales yi lënkaloo bi nu muy demee ba solution bi ñuy upp ni doon solution bo xamné day day génn ci ay créer emploi waye du dem ci eh, annuler emploi moy nañu togaat ak ñëpp ñu waxtaan out ay solution de remplacement évaluer les impenses té li tax ma ñëw ànd ak madame Aïda Mbodj nga xamné mom mo yor

ngeen toog waxtaan ak ñu xool nu ngeen di jàppale aussi ci ay financement gannaaw solution boobu ñu wax ni dinañ ko def ci ay place yu ngeen mën a toog liggéey ni mu gën a rafete suñ koy réglé tam ñu ànd ceeg yërmande état bi dina proposer ay mesures d'accompagnement la ñuy wax nit ñi mooy fu ñu leen mën ci proposer tam bu buñ ko xeeb parce que ñëpp xajuñu ci benn marché ñëpp xajuñu Colobane ñëpp ñu Sandaga suñ leen proposer ay mesures d'accompagnement mooy ay bërëb yoo xam ne dinañ ko libérer. def koy bërëb yoo xam ne ku newoon tabli wala ambulant war nga fa mën a dem na nga dem foofu xam ne sa wërsëg mën na la faa fekk en attendant ñuy régler loolu yëpp la ñaan nit ñi mooy ñu muñalante muy population yi riverains yi muy maire yi ñu mudalante féeg rek nekk ñu situation yoo xam ne day gàllankoor mooy li ñu mënul nangu mooy yoon bu ñu defar ba pare oto war faa romb nit war faa dox nit ñi ñëw bloqué ko trottoir yi mun nañu négocier pour le moment parce que buñu topone rigueur bi dañuy toj lepp kon magasin yi dañ koy toj ndax ci kaw trottoir bi la nek yi ñu nek def nii léeg-léeg dinañ ko toj kon yërmande moo ñuy permettre ñu régler problème yi